di ci teg président wu mouvement yi yu Pastef yëpp fi nuyu aussi autorités yi fi nekk yëpp euh, damay jéem a solennel nag parce que man xamatuma wax ci micro on a ñetti at ak nii kenn déggatuma ma wax ci micro parce que dafa am position yoo xam ne boo ko yoree moomatoo wax parce que boo waxee ñu dëkkale ko wala ñu féetale ko mais tey nag wax mënut a ñàkk. ndax wax li tax mënut a ñàkk tey dama fiy taxaw taxawaayu ñaari ñaari taxawaay laa fi taxaw benn bi dama war a ñëw ndax njaga bi ci des président dafa yóbbante te kon bu yóbbante ma gis ni yóbbante bi ñi mu toogaloon wax sànq këram muy El Hadj Malick bi yore communication di Abbas Fall mii di député ba ci Jamil Sané mii di maire parce que ñun ñëpp ñoo ko nekk doon sànq gis naa ni comme yóbbante bi kenn ñëwu ci ah xanaa loolu tax ñu ne ma bon naa ko wax ñàkkul dañ ma koo cëral nag mais ñu xam ni rek loolu li ci dëng rek man la yóbbante la mais li nga xam ne leneen li nag moom sama diggante digganteeg njaga loolu man maa koy mën a waxal sama bopp parce que moo tax ma ne ñaari taxawaay laa bi taxaw dafa am nag loo xam ne dama ko fàtte sama oto quoi moom laa bëggoon wàccee wan leen ko mais malheureusement dama ko fàtte dama yore ñaari butéel sama oto mais butéel yi ñoo nuroo couleur mais dañu am benn différence bu ngand mooy ñaari butéel yi dafa nekk butéelu lem ak butéelu tulukunu xam ngeen lem ak tulukunu ñoo nuroo di ay liquide bokk couleur Macky sàll nag problème mooy dafa jël baaram bi dugal ci lem ci benn bi ñam muy lem muy kenn ki muy Karim mu jëlaat benn bi ñam muy Khalifa Sall mu dem ñëw xamatul ban la mu dugal benn bi ñam tulukunu bi la sex nag muy Ousmane Sonko te tulukunu bu ko sex dañ koy yàgg tudd tudd moom Cheikh Yàbbe problème boobu la am ak ay butéelam xaw ma ndax xam ngeen li ma bëgg a wax mooy que ni xaw ma kan mooy lay wanaasu mais du doon Ousmane Sonko loolu moom damay dalal seen xel léegi ngeen xam loolu moom kon donc looloo tax butéel yi wàccu bu loolu weesoo euh, je crois que nit ñi tàmm nañ fu ñu ma gis rek gis président sànq ba tey tamit gis ngeen moom sëgg sama téléphone parce que vraiment fi mu nekk mel na ni mi ngi fii parce que maa ngi filmé di ko envoyé mi ngi may bind ma di ko tontu parce que dafa ñàkk pexe moo tax teewul fii euh, gàllankoor nag yàlla rek moo ko moomal boppam mais dem na ba date bi një njage njëkkoon jàpp sax mu renvoyé ne ko renvoyé ko parce que man dama bëgg a teew mais tey yàlla namul loolu comme nag. détail la du ñu mun a wax lépp mais moom mii ndey jimbili ji foog naa wax naa ko li waral gàllankoor yi te bu paree dina dajale bureau bu ñuy def foog naa ne seen évaluation wala seen compte bi wax leen lu waral gàllankoor boobu te xam naa ne nangul ngeen ko ko ndax tey ku gis tey ñi fi yebal ndax tey ku fi ñëw rek bu weesoo njaga ah, mun nañ ne président moo la yebal kon loolu ah, daanaka mi fi taxaw di sant nag. sànq dafa am lu am solo lu docteur Diaye de wax c'est vrai que moom léegi xamatul Dakar mais ak a xam àll bi ne meeku tout département de Mbour fu ne dugal nañu fu ne dafa dem ba mujj gi sax gendarme yi ñoo koy woo di ko laaj yan dëkk la ak fan ngay jaar pour dem ci dëkk ba tellement que moom il maîtrise son département ça moom vraiment euh, dañ koy féliciter di féliciter tamit coordonnateur département yëpp ñi ñuy jot a jaar ak ñi ñuy waaj a ñëw parce que tamit pareeguñu dañuy demaat ci nemmeeku bi xaajal xaajalaguñu sax kooku moom dama ciy dalal seen xel new département yi pare te keroog li ñu naan Pastef lépp ngi fi benn mag rek maa ngi ko dégg mu wax ni moom léegi beneen modèle nemmeeku tuur la def nee na mag mu ci nekk magu Pastef boo xëyee dugal sa quartier waxtaan ak nit loolu du nemmeeku te boobu moo ëpp garanti ndax koo ci waxal dina la ko nangul day wane ni fii rek moom foo coupé rek yi fay la fi ci des te tamit loolu muy rafet donc. Euh, lii jay wax léegi laay ñëw dëggal parce que man tey du fi nekk di wax waxi politique ak le 16 ndax loolu foog naa ne li ci Abbas wax ak Ousseynou lii ak euh, El Hadj Malick doy na sëkk bu fekkee ne ci wàllu parti bi foog naa li ma dégg Sare wax ko ci ak Ngañ dem ba nga maa ngi ko doon seetaan ci live bi avant meeg si foog naa doy na sëkk mooy bu ay xam-xam ñëwee ak i formation ñoom ñoo koy gérer bu dee xeex bi ñi ñoom foog naa ne lañ leen wax ñëpp dégg nañ ko kon man damay ñëw ci fidélité ak relation. mais fidélité bi euh, liñ naan dafa réciproque parce que foog naa ni tey il faut que nga nekk un homme courageux nekk de conviction pour mun a gëm sa fidélité dëggal ko sa diggante ak Ousmane Sonko et au passage damay remercier di féliciter ñëpp ñi nga xam ne dañ nekk ci entreprise di liggéey di ay fonctionnaires tey ñu affiché wu ci Pastef ñu ngi daj loo xam ne mburu du ko daj ci pour xam naa li ma leen di wax parce que ci entreprise laa nekk man bu ministre bi séenee sama photo sax woo suñu directeur général assamalaak nag ñi nga xam ne ñoom tey dañoo nekk ci état bi xam nañ seen bopp euh, donc ñooñu moom vraiment dañ leen di encourager ci position bi ñu nekk ndax dinañ leen napp dinañ la xooqtal dinañ leen neexal dinañ la sax ger mais loolu yëpp teewul fi ñu taxaw ñu ngi fi taxaw kon pour ñëw ci loolu dama ci gis fii quelques yoo xam ni vraiment jàpp naa ne seen diggante ak Ousmane mat na presque quarante ans dëgg la tey njaga moo aye waaye nag sër moom njàmbaas du ci wàññi dara lan mooy njàmbaas bi mooy jigéen jigéen boobu laay tudd tey muy honorable Aïcha te dama bëgg vraiment ngeen beral ko spécial ndax li ngeen xamul ci honorable Aïcha Touré moom mook Ousmane Sonko dañu daan ŋàbb ay banc ay banc laa wax de dem toog di jàng kon ku daan ŋàbbu banque amagoo dix ans ba tey ñoom quarante ans dama ne loolu kóllëre la mais comme tey du bisam mais nag man mii seen nijaay parce que foog naa ne léegi ñëpp xam nañ ne maay tonton national bi mënuma ko bañ a seedeel loolu te foog naa ne dafa delloo Ousmane Njukkal ndax tey ci salle bi bu ñu doon lim ñi fekkee bi ñuy créé parti bi assemblée générale boobu ku yëkkati loxo mu yëkkati loxo ndax jour boobu fekk na ko fa mun naa ko seede ndax maa ngi fi woon kon Aïcha vraiment tey lépp lu la parti bi dénk rek da nga ko mérité de du xaritoo moo la ko jox ñafe moo la ko jox parce que nekk nga nekk géejawaay di ko rayante ba ba nga dem États-Unis di ko fa rayante ba tey yàlla def na sax Ousmane Falo la yow waa diaspora bee la falal seen bopp kon vraiment gàcce ngalaama ay saanu munu ci woon bañ a ñàkk pour ñëw ci njaga nag foog naa ni jafe na jafewul mooy sama beneen taxawaay parce que daf ne ma tonton ñun de yu bële la ñu sol ma ne ko ñawal ma ci yu bële yi parce que ci yow laa far mu ne ma naa la ñawal bële mais bu ñu nuroo carrément doo xam ndax dañu organiser kon bële bii ma sol njagaa ko ñaw comme ñoom dañoo bële man ma bële malgré xaw na ko modifier tuuti nag parce que loolu cëru cëru beneen la quoi ndax maay nijaay spécial yow amoo bële yow toogal waaw mais diggante njaga ak. Euh, Euh, président Ousmane Sonko wax ci dafa jafe parce que ñaar lañ ndax ay nit bu fekkee ni li woykat bi daan wax dañ daan bokk bon daaw ñu ko am mënu ma ne mego mais dañ daan bokk di naan ataaya di bokk benn lal bu ñuy fanaan di defandoo lépp kooku wax ci ñoom dafay jafe man bañ naa ba bu ñuy xuloo ku nekk bu ne maa tonton jiw may leen déet génne leen mu ci bu weesoo démb nga xam ni kaw Kaolack lañ demoon lépp loo xam ni boo gisee Ousmane Sonko da ko tey loo añee boo paree boo ko laajee njaga la la Ousmane wax la lay wax chaque jour il mange ensemble mais dafa am lu ci ëpp solo mooy gis nga kilifa dafa am foo bu fa tollee am say nit ñu jege la lu am solo la mais nag dafa am jege ak jege ndax bu fekkee nit ki daf lay jege pour fu mu dem taxaw wane ni jege naa la moytul kooku bu fekkee nit ki daf lay jege. pour lu mu xam dem nettali ko moytu loolu mais bu fekkee daf lay jege bu weesoo di la nëbbal di la conseiller mais surtout li ci ëpp solo ndax dafa am foo xam ne bu fa kilifa tollee kenn du ko ñemee wax leen li mooy dëgg ndax dëgg rek mooy mujj moom ànd boobu lay ànd ak Ousmane man des fois mu toog moom di ko wax loo xam ne damay dem taxaw fële def ko siñ mu ñëw ma ne ko saa sa xarit la nag waaye nag kilifa la nag. dellu wàññi ak xeer yi tellement que moom xoolul gratu Ousmane bu wéetee ak moom fu Ousmane dem nag dina ko fa jox cër Ousmane it delloo na ko ndax tey am na loo xam ni bu weesoo li mu nekk seen président mouvement bokkul ci bureau politique de waaye nag Ousmane teg na ko foo xam ni dénk na ko loo xam ni kuñ ko dénk foog naa ne boo ko wóoluwul doo ko dénk moo tax depuis boobu ba léegi ku ne ma damay ñawal Ousmane rek may leen demal ci njaga ndax lépp ngeen di gis Ousmane di sol di approuvé ak di désapprouvé bu baaxee moom la bu bonee moom lépp luy habillement moom la ko dégg kon ñiy laaj mesure yëpp jël leen a njaga ngeen koy laaj mesure comme ça ma ngeen tegee ko ma gis bi tamit comme li ma wax ci cadre coloré rek ak ku ci mel ni sama jarbaat bi toog di Pape Cissé parce sànq am na kook lu am solo bu fi Ousmane tey ñi fi nekk ànd ak moom presque lu ma trente ans vraiment coloré weesuwul lool mouvement bi nag gis naa ñu bind dañuy gagné non gagné ngeen ba pare yéen koy après da ngeen di dindi dañuy gagné bi léegi dañuy def gagné nañu parce que lii moom kon nañ ni benn mouvement mosu ko fay def kon peut-être que tey lépp ngeen fësal rek mais mouvement bi bu ma juumul koor gi passé rek yéen a ngi woon di joxe ay ndogu dem ngeen fi Kaolack donc kon mouvement baa ngi def ay activité di leen ci remercier di leen encourager donc tey ñàkkul ba fas fës la woon rek mais pour encore une fois man daal bu weesoo affaire mouvement bi li ma mën a seede mooy diggante Ndiaga ak Ousmane li ma Ousmane wax yëpp nag am na lu ma ko jot a wax parce que euh, c'est comme si tey moom bu ñëwoon wax ci turu Ousmane bu fi Ousmane tey moom bu doon waxee mën na wax ñaar tànk yëpp mais encore une fois pour ba a guddal euh, dañuy remercier ñëpp au passage di ab Abdou je crois que bi ko fi Ousmane Sonko recevoir siège ba xaw na yàgg tuddi j'ai été le premier bi ma ko accueillir dugal ko salle d'attente bi ne ko man vraiment yaa ma tax a bëgg ndar ndax say musique waaw parce que buy woy woy xale mi yooyu xale laa sama doom bi moom noo def mu jóg fecc quoi papa jiite sekk papa jiite sekk la ko daan wooyee donc vraiment ma ne ko man lii moom Euh, sans compter nag qualité yi ñu wax yëpp parce que tey woykat bu nekkul milliardaire fii rek yow la neex ndegam ngóor ku ñëw ci volontaire bi sax ni ko président bu jox la un million asamala ak tey boo ko doon xalamal kon léegi nga nekk milliardaire nag da jàpp sa ngor jàpp sa dignité mais surtout nekk patriote par rapport ak parce que ci mouvement bi la bokk tamit loolu moom mën naa ko seede waaw voilà donc loolu daal vraiment euh, di wax rek ni euh, président lépp lu ngeen jàpp ni jàpp na lu ko rëpp man de des fois damay toog yàgg mu ne ma des fois yàllaa koy taxaw mu ne ma tonton Djibi ma ne mu ne ma on n'a pas le droit à l'erreur ou à décevoir ce peuple là. dina wax boobu wax boobu koy wax doo comprendre porte mais dafay dem wala may dawal ba ci yoon bi ma taxaw droit ma ne kii est-ce que li mu man xam naa ko. day day toll foo xam ne maanaam fi mu ne nii mun naa ne képp ku nekk Pastef rek jàppal ne sa bakkan lañ ci xottu gerte waaye nag waxuma la xottu gerte waaye dañ jël suñu bakkan sax ñun asaaloo ko quoi waroon nga ni ñun pare nekk vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier responsable yëpp.